سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين ورضوان الله تعالى عن العبد الخديم شيخنا ووسيلتنا شيخ أحمد بن بخادم رسول بكي جناب بنيو جناب بنيو سنت يلا بور سبحانه وتعالى جبلتي جلتي يوم تمتد الله تعالى عليه وسلم di santaat sunu yaakaar yi tëjëg ëllëg Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi sëriñ Touba Cheikh Sidiyal Muxtaar Mbakke xalif général kullu murid di ko ñaanal sunu boroom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi loolu te wéral ko ba mu yëggali lépp lu mu liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadima Rasul te ànd koog mboolem jullit yëpp ak mboolem taalib yëpp waaye naka noonu la ñuy ñaanalee Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général kullu Baay Fall sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko moom itam ba lépp lu mu yéenee liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Muridina mu eggali ko ànd koog mboolem jullit yëpp ànd koog mboolem taalib yëpp. seen mbokkum taalib bi Modou Thiaré jàkkaarloog Serigne Abdou Sakour Mbaye ñooy am yéene dellusiwaat ak yéen ci seen jotaay bii di axlu xasida ngeen baaxoo ko am àllarba bu jot vingt jàpp vingt-deux heures ñu baaxoo ànd ak yéen di soññante di laabiire wante ci xasaayidu sëriñ Tuubaa yi axlu xasida di émission boo xam ne dañ leen ci indil ay waxtaan yoo xam ne ay boroomi xam-xam yu seen xam-xam màcc ci jëm ci wàllu xasida yi euh, ñoo koy amal ñu di ci soññee ak di waxtaanee leen ci ngëneel yi nga xamante ne suñu borom subhaanahu wa taala defal na ko Serigne Touba ci xasida yi di ci soññee itam ci yoon wi nga xamante ne suñ ci jaaree dinañ gën a mën a jëriñu dëgg-dëgg ci mbindum Serigne Touba kon su ko defee dañuy jox Serigne Abdou Sakor mu nuyoog mbokk yi ñu daal di leen présenté tey incha allah waxtaan wi ñu leen indil ak laaj ak tontu yi nga xamante ne baaxoo nañ koo seq ak mbokk auditeurs yi kon Serigne Abdou Sakor asalaamaaleykum. waaleykum mm-hmm. uh, salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ Modou Thiaré uh, maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la fayab nuyoo di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu tawfiq bu baax a baax barke Cheikh Ahmadou Bamba uh, di jiital ci nuyoo bi nag ak siyaar bi saaxibul fadila wal wasila Cheikh Seydil Muxtaar Mbàkke di ko ñaanal suñu borom defal ko ak du fan ba lim yéene liggéeyal si Ahmadou Bamba lépp ci islaam ak yoonu murid lépp mu def ko ni mu ko soobee te ànd kook mboolem murid yëpp waaye di ci toftal muridam bu màgg ba Euh, sëriñ Cheikh Jëmb Fall nga xam ne moo toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul dina euh, te mat ko sëkk di ko ñaanal sunu borom tabaraka wa taala yàggal ko fi te wéral ko balam yéen a liggéeyal Cheikh lépp mu defee ko ne ko soobee mboolem Baye Fall yi euh, di beral ne ki nga xam ne mooy sunu bunt ci yoon yi muy Serigne Cheikh Ndigal faal di ko ñaanal sunu borom defal ko tawféex yokk ko yokk aw fanam yokk ak wéram bari mu yéen a liggéeyal Cheikh Amadou Ibra Fall lépp mu def ko ne ko soobe waaye di nuyu mboolem koo xam ne nag sëñ Modou yaa ngi déglu rajo Touba Fall FM 105.5 foo ñu mën a teewloo ci biir réew mi rek ak bitim réew ñoo ngi lay nuyu bu baax te di la siyaare di la ñaanal suñu kàddu fekk la ci jàmm ah, di nuyu mboolem uh, auditeurs yi yëpp yëpp yëpp rek uh, di siyaare ki nga xam ne tamit uh, mooy mooy mooy mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ak Cheikh Mouhamadul Bachir. ak mbooleem kilifa yoonu yëpp ñoo ngi leen di siyaar baax ak képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg rajo Touba Fall FM euh, di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Serigne Abdou Sakor mbay ci nuyoo yu matali yooyu man su ko defee comme ñu ko waxee rek euh, tey jii nag incha allah ñu fas yéene ànd ak yéen euh, waxtaan wu am solo woo xamante ni ni Cheikh Mouhamadul Mountakha Al Bachir. Hmm. doon na ko amal ci xew-xew bu màgg bi nga xam ne moom lañ jógee barki démb. muy màggalu xasiida mi nga xamante ne moom lañ doon defee ca Touba Jaalibatul bi ca daari Serigne Hamzatu Mbàkke moom Serigne Chouaïbou mm-hmm. ñu ci ndokkeel mbooleem jullit yëpp euh, ñu fa teewoon ñëpp ak ñu amoon yéenay teew ci bés bu am solo boobu nga xamante ne dafa bokk ci bés yi gën a màgg ndax bésu jaam yàlla suñu borom subhaanahu wa taala la euh, mu mel ni Serigne Muntaxa Mbàkke yëkkati woon na fa ay kàddu yu am solo Euh, doon soññi taalibe yi ci xasiida yi ak itam gën a góorlu bu baax a baax ci liggéeyal Serigne Touba kon waxtaan woowu nag moom lañ fa yéene ànd ak mbokk yi tey ngir ñu gën cee dolliku bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax waaye axlu xasida itam comme ni mu ko baaxoo defee di leen indil ay laaj yoo xam ne bu ñu teew la waxtaan yi ba noppi dañ koy seq ak mbokk yi nga xamante ne ñooy teewlu tey durus ngir ñu mën di jaar ci buumu jokkoo bi tey laaj bu njëkk bi nga xam ne moom lañ leen indil mooy euh, dafa am ñetti bayit yu ñuy laaj ci ban xasida la nekk laaj bu njëkk bi mooy waxfir li kulli muminin wa mumina waqud lahum munan li shukrin mudmina waxfir li kulli muslimin wa muslima wahab lahum min karidan wa marhama waxfir li kulli muhsinin wa muhsina wa lahum awsil mazida hasana ñuy laaj ci ban xasida la nekk inshallah allah képp ku ko tontu soxna jaan si sa batul maraqib moo jaayante xasida ak jaalibatul maraaxib ak xasida gii di anta rabbi kon su ko defee dañuy bàyyi sëñ Abdou Sakor mu fàttaliwaat beneen laaj bi incha allah. ok jërëjëf sëñ Modou ci laaj yu am solo yooyu nga indil mbokku talibe yi waaye day mel ni beneen ñaareelu laaj bi tamit xaw naa nuroog boobu waaye nag bokkuñu xasida guñ nekk moom itamit wax fiir la waaye tam. moom it ñu ngi laajte daal képp koo xam ne xam nga ci xasida gu mu nekk moom itam neexal yaa ngi la fiy xaar euh, ñett yooyu mooy ñetti bayit la moom itam mm-hmm. ci njëkk mooy waxfir li kulli muminin wa mumina maxfiratan li kulli xayrin mudmina mm-hmm. euh, waxfir li kulli muslimin wa muslima maxfiratan taadimuhum min zalama mm-hmm. ñetteel bi mooy waxfir li kulli muxsinin wa muxsina مغفرة لهم تقود الحسنة لولو موي نيار لولاج بي نيار لولاج بي ان شاء الله ملني سونو باي باي الين تيار نيك فلي تي توبا لملكلي موكو جاينتي الخسيده جي دي تيسير العصير اك تحفه المتدرعين نيسان باي الين تيار سونو باي توبا لملكلي ان شاء الله كون سونو تيو لو واختاني بو نوبي دي نان مانا اندك موك يي 88 628 19 25 واختاني مينا كوم نيما كو واخي ليغي ريك اي كادوي سوغنيلا جيم تي ليغيل سيرين توبا اك تي غينا غورغولو بو باخ باخ خسيده kàddu yi nga xamante ne Serigne Mountakha doon na ko yëkkati barke démb ci bésu xasida bi nga xamante ne moom lañ doon amal ci kër Serigne Hamzatu Mbacke bu nekk fële ca diwaanu tubaa Touba Diallibatul Maraaxib ñu di ko ndokkeel bu baax a baax moom Serigne Serigne Hamzatu Mbacke moom Serigne Chouhaïbou di ko ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ tubaa mu yeggali ko te ànd koog mbooleem jullit yëpp ak mbooleem taaliba yëpp ci barke kon su ko defee ñu teewlu waxtaan incha allah bismillah الحمد لله رب العالمين جرى جرى جرى كتاب يدقوي جيتو ما تي واخدي دو نسك ما ما هي شيخ عبد الصمد dara da ci mënta dolliku ndax li nu ci bëgg a xam lépp ngi ci biir waxam ji kon dara da cee mënta dolliku lu dul nag rek sant ak santlu nun di gën a war ci noonu muy sant rekk sëriñ bi cant gi nag dëgg la mën nañu jéem mu dëggu ci xol yi gën a jéem it mu dëggu ci xel yi gën a jéem it nag mu dëggu ci jëf yi sant sëriñ bi rek mooy suñu wartif ndax fàggul nañu lépp dëgg yàlla moo nu bind andi nu fi di nu jaamuloo nu di jaam ñu war a jaamu kon buñ bëggee sant sëriñ bi il faut que nu nangoo jaamu sunu jaamu nun mën nañ cee fas jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ginnaaw loolu moom jaamu yàlla moom sañu nu ko bañ kon sunu jaamu yàlla nun mën nañ cee fas liggéeyale ko sëriñ bi luñ ca mën a dolli nag ca lan suñu borom bàyyee luñ ca mën a dolli nag ci jël ko liggéeyale ko ko ñu dolli ko ca kon suñu cant noonu foofu rek la war a nekk ak cant dong lay dolli ci wax yi Cheikh Abdou Samad ji nañu góorgóorlu ci sant sëriñ bi fa tabaarakallaahu paggu paggu paggu tiis bi nu sëriñ bi faggul ci nu bëggu ko ba mu gënal lu lépp nu doyloo ko ba mu gën gën noo doy lépp loolu mënoon naa doy waaye nag sant sëriñ bi ci nun wurta am fu mu yem bëgg gi moom ak doyloo gi moom moo nu ko faggul am nañ ko doy na sa kiitam tey ëllëg waaye nit mënut a toog loxoy neen li nu sëriñ bi defal war noonu koo sant sax ca sant ga faw feeñ noo ngi àdduna yóbbaale ko suñu yóbbal ci àllaaxira di sant sëriñ tubaa kon nanu góorgóorlu bu baax lañu ci gën a dimbali nag te yombul muy waxtu wu nekk muy jéem a gën a xam sëriñ bi muy waxtu wu nekk muy gën a jéem a dund sëriñ bi luñ gën a xam sëriñ bi gën a raw lu ko gën a dund gën a kawe ñëpp kon foofu la liggéey bi nekk ku bëgg liggéey foofu la bi nekk nee na jéem a xam sëriñ bi sax ca dàkk te di ko jéem a dund lii sëñ Abdou wax sëñ Abdou wax yi mu fi nettali fii loolu doomu aadama mënu ko waaye nu nu jël sëriñ bi teg ko ci sunu kanam ak nam nam doon doxe digg ma borooma ak digg ma yonent bi at nag noonu doxee digg ma boppam nanu fab sëriñ bi ginnaaw lu ñu ko gën a xam gën a raw lu ñu ko gën a dund gën a kawe ñëpp foofu la liggéey bi nekk amaa moom ci boppam ginnaaw sant ko rek mu war a doon suñu liggéey yaar buñ ca góorgóorloo dañ koy gën a jege muy gën a bëgg ci ñun yaar ñun ci gën a góorgóorlu dañuy gën a jegeel boppam di gën a bëgg ci ñun loolu nag yaakaar naa ne murit loolu war na ko jaral lu ne kon yaar la ne war a góor gën a góorgóorloo danaa danoo bëgg sëriñ bi di bëgg ci ñun nu bëgg jege sëriñ bi tey nag dañu góorgóorlu ci yaar dañu jéem a set set set ci bàkkaar sunu képp kàttan yombunu waaye nañ ko jéem ndax moo ni dolli ci sëriñ bi nanu gën a fonk xasay xasay di mooy suñu xaas lu nu gën a fonk xasida sëñ bi di gën a bëgg ci ñun lu nu ko gën a jàng gën a jege sëriñ bi waxi sa yax abdu samat bi loolu yaar yooyu laa ci dolli nanu góorgóorlu bu baax ci jéem a set di gën di set ndax lu mu gën a set rek sëriñ bi gën a bég ci ñun lu mu gën a set gën a jege sëriñ bi te man ko xasida yi nag xasida moo nu war a dàqal lépp lu ñuy lekk lu ne jàng xasida yi moo nu ko war a dàqal luy daal xel lu ne ci xeeti ngar naye jàng xasida yi moo gën a gaaw waxi Cheikh Abdou Samad ji moo ci dolli dara waaw cant rek laa ci dolli. kon nan ko dégg bu gën a dégg bu baax nan góorgóorlu ak lu mu jafe-jafe-jafe nanu jéem a góorgóorlu di gën di set góorgóorlu ci xasaay bi di ko sàmm di ko jàng def ko mu sunu dund ndax mën na ko li ci maanaam nag sa sa yëpp sax moo tax ma fa bàyyi li ma nar wax <laughs> waaw waaye maa ngi jégalu maa ngi jégalu déglu leen yéen ñëpp sëriñ bi ne maa ngi waxal bokki bi yëpp dafa am luñ lay ñaan kenn ku ne ci noonu am na xaside goo jàpp ne mooy sa xaside ni bu ne mel nga xam ne doomi Sëriñ Tuubaa yëpp nga fonk te leen waaye da nga cay kenn mu ngi sëb nun ñii ku ne am na xaside goo féete woo defe mooy sa xaside waaye loolu dañ ko coobare wu def ko rek tey jii nag dañ lay ñaan nga jox nu goo xam ne danga nga naan jox naa leen digal xasida sàngam goonu jox rek ñu foog goonu tibbal rek ñu jël nooru daari ngeen def doy na sëkk nooru am naa am naa ci am naa ci firnde am naa ci am am naa am naa ci am naa ci firnde nooru daari nii am naa firnde nooru daari nii am naa ci hmm. ko jàngal Nuuru Daarayni Cheikh Saalihu moo ma ne woon dee ma ko jàngal ma di ko jàng bi ci mujj ci mujj bis bu sel ma jàngal ko ko bi ma ko gisatul te xam-xam yi bari aji mu juree ma jàngal ko ko boo koy jàng du ma ci fas dara Cheikh Saalihu rek laa koy jàngal moom laa koy liggéey waaye xasida yi xasaayid yi rek laa wax waaw buñ ci bu ci wóor na ne ko bind koo ci jàpp doy waaye nag lu mu gën a bari gën a baax noo ko gën a yaatal mu gën a baax waaw li ma doon li ma ci doon nag moo di loolu dafa dugg lépp ci waxi Seex Abdu Samad bi Sëriñ Basiru dafa am bis mu maag beneen mbokkum taalibe muy waxtaan ak ñun ci sëriñ bi mu lam nu jëkk nett li ci biir wax ja xam koo xam ne dafa ñëwoon sëriñ bi di ko di ko jaaxle daal bagg mel ne ku bëgg xam sëriñ bi lu mu doon sëriñ ba mu yàggee ba yàgg sëriñ bi ne ko diw boo yoon dalli nañ di ko doxee ba mu xar doo gis ku mel ne man ah sëriñ bi nag sëñ Basiru moo ma waxoon fullaam te wax jooje la dem ba tàng xaal ne waaw waay sëriñ bi sax am na fulla foo ko toll rek mu toll la fa waxtaan day mu gën a tàng ne bi sax am na fulla foo toll rek mu toll la kon bis bii leer taxaw sëñ xamsatu bii leer na naññ leer na nañ sëñ bi foo ko toll mu toll fa leer na naññ moom nag dañuy gën a ñaan rek waaye sampu sëñ bee waaye dañuy gën a ñaan nag mu gën su ma gën koo sàmm bàyyi ko fi lu yàgg mu nekk ci liggéeyam bi tabaarakallaahu alhamdulilahi rabbil alamin lépp pàggu sëriñ bi taalibe yi bëgg na sëriñ bi lool te boo ko di seet da ngay defee ne gone yi sax yi jóg dëgg ñoo ko gën a bëgg da boo ko di seet ñëpp ko bëgg waaye boo da ngay defee ne gone yi sax ko gën a bëgg loolu nag loolu mbir la loolu gone yu ndaw yi ak jigéen ñeeg ñëpp gone yu jigéen yi boo ko di na da ngay defee ne ñoo gën a bëgg sëriñ bi mën na dara xel waaw sëñ bi fag fàggul na nu lépp waaye bun na yàcc bun yàccaaral bun sàggan nanu jiinu sant sëriñ bi ci ni mu ko bëggi noonu rek la demee jërëjëf Mhm. alhamdulilahi rabil alamin jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ne yéenay bàyyi xel rajo Touba Fall FM 105.5 kaddu gi di bàyyi ko fii ci Touba kon nag waxtaan woowu tey moom mooy waxtaan bi nga xamante ne moom lañ leen indi woon euh, yaakaar naa ne teeglu wén ngeen ko mu làmboo ay ngëneel yu rëy rëy nag ñeen képp koo mhm. xamante nii rek maanaam seetantal nga ko ndax sëriñ mun Mountakha soññee na ci bu baax a baax a baax a baax ci xasida yi mhm. euh, ngir ñu gën ci góor góorgóorlu bu baax a baax Euh, te xam na lépp loo xamante ne nit ki mu ngi koy sàkku ci njëriñul àdduna ak njëriñul àllaaxira rek Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu fàggul nañu ko ci wax na itam ci gën a góorgóorlu bu baax a baax fexe ba euh, xam Sëriñ Tuubaa hmm. te xam Sëriñ Tuubaa itam mu ngi juddoo ci xam xasida yi ndax loo gën a jàng xasida di gën a xam Serigne Touba mu toll nii dañuy faral di wax ne képp ku la ku la gën a jàng xasida gën a xam Serigne Touba ndax soo ci nekkee Serigne Touba mm-hmm. da lay xamal loo xamante ne yàgg moom la waaye di euh, maanaam sa digganteeg moom la mais yoonu kenn nekku ci kon waxtaan bi euh, am na solo am solo goo xamante ne yaakaar naa kenn xam kenn mënu koo takk ngëneel yi wax na itam ci gën a góorgóorlu ba nekk ci li neex Serigne Touba nekk ci lu neex Serigne Touba mooy nekk ci xaside yi di ko jàng te di ko sellal ndax soo ci nekkee lépp loo xamante ne Serigne Touba doon na ko ñaan suñu borom ngir xaside yi di ko defalee rek eh, ñaanuk Serigne Touba googu day delluwaat ci yow da ngay mel ni nga xamante ne mooy mooy ni ni Serigne Touba bëgg ab taalibe mel ko hmm. kon yaakaar naa loolu itam day dellusiwaat rek ci ngëneelu xasida yi hmm. ba tax nañu war cee gën bu baax a baax a a a baax hmm. di ko fi loolu te wéral ko di ñaanalaat bu baax Serigne Hamzatou Mbacké mi nga xamante ne moo doon taxawee bés bu màgg boobu nga xamante ne muy màggalu xasida yi mu nekk loo xamante ni comme ni ñu ko doon faral di waxee saa su nekk rek day lu ama am solo loo xamante ne ni euh, dafa war a yaatu bu baax a baax a baax a baax ndax màggalu xasida xasida yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo ko njëkk màggal loolu la sëñ Tuubaa xam le ndax dafa wax ne min asasin libal sasin xabiltaha xasaayidi kamaalahu bajjaltaha suñu borom def koo nangul mbindam lépp ginnaaw bu mu ko nangu itam mu màggal ko ca muxaddamaatul am daax di nga fa fekk muhammadin man bajjala xasaayidi ginnaaw bu ko yàlla màggale yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam itam màggal xasida yi gis nga sëñ Tuubaa bu mu ne isakatabtu tazaarsul baaxi wa sabahat malaayku tibaaxi saa bu bindee aras suñu borom bi subhanahu wa taala dafay jaayu fa mu nekk malaayka yëpp di sàbbal suñu borom subhanahu wa taala mu mel ni dañ koo laaj ana lu waral aras di jaayu ne yaxtasu arsu rabbina al azimi min xalami ihtisas zu tanzimi jaayu gu aras di jaayu dafay jaayu ngir màggal xasida yi kon yaakaar naa ne màggal xasida woote màggal xasida nekk na loo xamante ni lu war a war la waaye ñu ciy ndokkeel Serigne Hamzatou Mbacké moom Serigne Chouhaïbou bu baax a baax dafa dafa mel ni Serigne Touba moom la ko dencaloon ndax mooy ki nga xamante ne moo njëkk a woote màggalu xasida ba jamono ji ñu toll bëri na ay màggalu xasida yu ñuy woote kon nag loolu ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax te ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yàggal ko fi ñu Abdou Sakor waxtaan wi am na solo lool yaakaar naa Modou waxtaan wi amna solo lol lol lol lol Cheikh Mahamadou muntaka mom mm-hmm. dafa dund xasida dañu mourid sadiq ci saadix wéré wéré dañu mourid sadiq bo nopi moo tax motax motax motax da na ñaan sunu borom yàggal ko fi rek ya yàggal ko fi lol mak ci wéral ko gep amin ya rabbal ya ah, alamin ak Cheikh Abdou Samad mom Serigne Souhaïbou mi nga xamne mo moo won bis bu tedd bobu mm-hmm. nga xamne ni nga ko waxee rek mm-hmm. Euh, mbir la moo xam ne. Mm-hmm. adduna bépp dañoo war a marché di di di ko woote. ndax xasaayit yi. Mm-hmm. Euh, moo moo moo moo moo may ñëpp jàmm. wallaay ndeysaan mm-hmm. ñëpp ñëpp ñëpp jàmm. ndax lépp ci la ko Sëñ Tuubaa def. lépp lépp ci la ko def maanaam loo bëgg rek. adduna ak allaaxira ci la ko Sëñ Tuubaa def. moo tax nga dégg Sëñ Muntaxa naan léegi. li des mooy nan sant rek. sant yàlla sant te sant moom. moo fi sës amul leneen loo mën a defal sëriñ bi mm-hmm. ba mën koo fay wala wala wala dara ndax boo ko jéemee fay suñ mënu koo fay ndax lim la defal moom mm-hmm. kenn mësulu koo mën a defal ci àdduna kenn mënula ko it ëllëg mm-hmm. kon moo tax suñ muntaxaa di di di di di nga dégg muy insisté lu bare bare bare ci baatub sant boobu naan nañ jéem a xam sëriñ bi sëriñ bi mënee su koo xam comme ni nga ko waxee waaye di ko jéem di ko di maanaam di ko jéem suñ kem kattan ndax ndax daa waxoon ne eh, maanaam di leen namp si ci man. Mm-hmm. waaw ci sama ween. Mm-hmm. mais weenam nag mooy xasida yi. maanaam boo ko jaaree ci xasida yi rek moom moom mën nga koo am mën nga koo am. bu bu bu bu gaaw a gaaw ndax. Mm-hmm. comme nee na euh, sama mbirum sama sama sama sama mbindam loxo mooy samay karaama. kon boo ko jaaree ci mbindam loxo moomu. Euh, mën na mën naa am yàlla dogal nga nga jotti te moo ko waxal boppam mu ne xustul uluma wal maqaamaatil kiraam bil xatti xaisan bihi fooqal maraam kon Sëñ Tuubaa ci mbindam mi ci la làq mbooleem xeeti xam-xam yi ak mbooleem maanaam daal lu lu maanaam lu lu kawe njort lépp looy sàkku lu ko kawee ma ci ginnaaw xasida yi moo ngay dégg ñu naan la booy jàng xasida jërut naan may ma lii may Sëñ Tuubaa moo la gën a xam lépp te ñaan na lépp ñaan na ba ci la ca la ca yi ngay dégg Sëñ Muntaxaa ci ci ci biir waxam nga dégg mu naa nan fonk xasi day fonk gi ndax loole lu ko lu ko mat la ndax xasaay day loo xam ne ginnaaw alquran ak xadis mooy wax ji gënal sunu borom tabaraka wa taala si ahmadou bam ba moo ko waxal boppam kataballahu tabaraka wa taala an haadihi alqasida ahabu ilayhi min gayri alqurani walxadis suñ tubaa moo ne moo saa borom moo bind ne sama xasida yi day moo ma gënal man seen borom xasida Sëriñ Tuubaa yi moo ma gën a lu dul moom maanaam lu dul alxuraan doo xadis mm-hmm. nee na xasida yi ko ko gënal kon li gënal yàlla nag mm-hmm. kon dañ ko war a fonk noonu jaam ñi bu baax baax baax a baax mm-hmm. xasida yooyu itam boo ko seetee Sëriñ Moodu li ci Sëriñ Tuubaa li ci Sëriñ Tuubaa wax li ci li mu ci wax te te mañ koo xam ci saahir nii yooyu mënuñu ko wax mënuñoo xam waxi sëriñ bi waaye nag liñ ci mën a fortaatoo ko su néew maanaam léeg-léeg day ëpp sax suñuy nopp noonu day day day ëpp suñu nopp wajal bihi nazmiya fawqa sawmi wa gayriha min maaniaati law mi waaw na nga def sama sama sama sama mbind mii sama mbind mii mu kawe koor gu ñu nangu ak leneen lu dul moom ci waral ëllëg ëllëg gàcc maanaam mboolem yu baax yi daal na ko sama xasida yi fa fare ko ci gàttal mboolem lu baax looy wut rek jàng xasida suñu tuwaay moo moo moo moo féete loolu moo féete loolu kaw kon daal Eh, li sëñ Muntaxa wax ci xasida yi hmm. loo am am solo la hmm. wax na it ne xasida yi moo gën a neex ci noonu hmm. lépp loo gis <laughs> moo gën a neex ci noonu ci murit murit yi xasida yi moom moo gën a neex ci ñoom lépp waaw moonu war a dàqal lépp maanaam bànneex booy jàng xasida maanaam bànneex bi nga ciy yëg maanaam moo la war a dàqal lépp te it nag noonu la demee bari na murit yoo xam ne xëy toog di jàng xasida na gënoon sax di ci di ci boole leneen hmm. waliha fil xatti wa tilaawa fawqa ujuril xurri wal xalaawa hmm. yow saa boroom nag ma may ci sama mbind mi te xasida yi ak jàng gi ñu koy jàng ak jàng gi ñu jàng alxuraanu karim hmm. lu gën a kawe payu gaa yu baax yi fi jaaroon lépp ak mbooleem yu neex yi kon mbooleem yu neex yooyu day dellusiwaat ci xasida yi mbooleem yu neex yi booy jàng xasida day day day gën a day gën koy ci yow cant gi nag lu lu lu mën a lu lu mat la lu mat mm-hmm. la ndax eh, maa ngi fekk si bind sëñ bay Jaxate yoo xam ne eh, da ciy wax da ciy wax ci ci ci ci ci cant ndax ndax li li ñu sëñ Tuubaa defal mm-hmm. lanu njëkk a wax ba noppi ne ku nekk gën baayam ak maamam te gën ndeyam it mm-hmm. te gën nijaayam ak kii maasam te moo ko waral moom sëñ Tuubaa daan <laughs> ne ku sant lit mën danaa jóg sant waajanu may ndax gor su dul sant xéewal soo sa gor gorewul wallaay kon li sant gi sa suñ sëriñ bi digal eh, sëñ taxaa mm-hmm. ah, lu wér wér la mm-hmm. gis nga mag ñi fi jaarum ki man gis nga suñ mbay jaxate boo ko toppantee ji da ngay dem ba gis ci yoo xam ne mm-hmm. dalay wóor na cant moo gën a ko way lépp kon eh, alhamdulilahi rabbil alamina ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ci sëñ Muntaxa di ko ñaan sama borom na mu yàggal ko fi lool lool lool te wér te eh, gën noo xiir ci ñuy jàng xasida bu baax amiin yaa rabbal aalamiin masha Allah ci njàngat yu am solo yooyu nga xamante ni itam yaakaar na mm. dañuy dolli bu baax a baax a baax a baax a baax mm. kon su ko defee itam mu mel ni euh, keroog bés ba ñu fay jëloon kàddu yi soññee ci xasida yi bari nañu lool mm. euh, bokk na ci sëriñ Basiiru Mbàkke Xelkom bokk na ci sëriñ Aline Diop xidma Euh, bokk na ci Serigne Ndiaga Seck bu Sud FM rajo Sud hmm. bokk na ci Serigne Abdou Samad Mbacké. su ko defee kon ñu jukki lenn ci kàddu yi Serigne Abdou Samad yi incha allah. ay kàddu yu soññee itam jëm ci. xasida yi bu baax a baax a baax. defee ñu soog a ànd ak mbokk yi nag laaj yi ak tontu yi ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa kon su ko defee dañuy ànd teewlu leen ci kàddu yi nga xamante ni itam Serigne Abdou Samad Mbacke yëkkati woon na ko keroog ci màggalu xasida bi nga xamante ne doon nañ ko amal samedi bii ñu weesu ca Touba Jaalibatul Maraaxib incha allah. li ñuy def ci xasida yi Serigne bi loo wax ci moom lu mu rëy rëy li mu wax ci boppam ko gën a rëy ndax dafa xam boppam. ba mu gisul kenn malaayika yi ñoo koy awal xasida yi day jóg laxasaayu takk ndigam aw ci tefes gi di dem di yëkkati xasida yi ca kaw kon kenn jumbute jàng xasida motax taxit yàlla defal ko ci xaside yi loo xam ne defal kenn ta duko defal kenn bari waani mourid bo deg mu ne ci biir bàmmeel moos boo mënoon wax ak moom danaan la jotumaa gi sëñ bi ndax bim la laataa ñëw xaside yee maram jaawurtu ni lol la ci wax dane dama ñàkkuk jot te bëgg mu dima wuti ci mourid yi koko mokal mokkal malaayika la ci bammel lama waron taxaw ci bammel di wax ak malaayika bayil diw bayil diw duma ca lay layal yi de bi daana tok amna bis mu tok soxla sat gu bax yàkkamti ko lool am kum ne baxalal ma sadda gi kooku it defe ne sëñ bi yàkkamti gi ta dem di wuti matt di ko ci mu daal di foofu xasida noor daay den gi mu yoroon tiimale ko satala gi mu daal di bax bay bay bay bay tuuru xasida gi rek la ko tiimale sëriñ bi ne ko lii man mi ko bind maa la ko dàq demal wutik sat la ay <laughs> matu matu jalambaan baxal ko ci ba mbax nga andil ma ngir wan la ne murid yu mag ya lu ne lañ daa def ci xasida yi lu ne dégg naa ci sëñ bu mu ne coxfatu day murid yi mësuñu cee weesu lugug jaan xas xas rek tofatu duñ ko ci weesu mukk aajo yi lu mu rëy rëy nee na mosuñu weesu jàpp ba sell jàng ko juróom-ñaar yoon mu faj seen aajo kon nag lu des ci noonu la dese waaye du ci xaside yi ah yaakaar naa ne nag li sëñ bay Jaxate di wax naan cëru waay cëru waay ku bëgg it ba fa mooy lii ndax bisub xasida yelloon na lool tajaadu lool waaye dafa mel dañ koo dencoon ba sëñ Xamsatu ñëw ñu jox ko ko këru xasida yelloon na lool tajaadu lool ni ko alxuraan mu amee ni la ko xasida war a amee waaye niñ defal sëñ Abdul mu di ko nekk di ko nekk ba mu ñëw mu door wutal alxuraan kër noonu lañ la defal mu di ñu di leen nekk di leen nekk xel du ci dem kenn du ko bàyyi xel ba mu egsi ci yow ndax sëb cër nga dëkk këru xasida gi hmm, jërëjëf euh, Serigne abdu Samad Mbacké kon mbokk yi yaakaar na kàddu yooyu itam euh, nekk na ay kàddu yoo xamante ne lépp rek dafay delluwaat ci euh, ngëneel yi nga xamante ne ni maanaam xasida yi làmboo nañ ko. Mm-hmm. gis nga lu yéeme loolu nga xamante ne ni wax na ko ci xasida gi di nuuru daari ni euh, jamono yooyu sëñ bi yittewoo woon ndox mi mm-hmm. taalibe yi ku mu waxoon ngir mu indil ko ndox mu tàng mm-hmm. waaye taalibe yi yaakaar ne xëy na sëñ bi yàkkamti na ko yàkkamti lool ba tax mu jël xasida ak nuuru daara ni rek mm-hmm. eh, daal di tàngal ndox mi kon loolu nekk lu yéeme loo xamante ni dafay wane màggaayu màggaayu xasida eh, am na mag moo xamante ne wax nañ ne eh, suñ mësaana am ay xew-xew nii bay toog ay kafe mm-hmm. moom wakaan xaqan rek lay lay lay jàng oh. daal di di def li ci mbane yi mu daal di saf suukar donc yaakaar naa loolu day wane ne la rek lépp mi ngi ci xasida yi lépp mi ngi ci xasida yi lépp ngi ci xasida yi mm-hmm. euh, noonu la demee sëñ Modou lépp lépp lépp lépp mi ngi ci xasida yi ndax xam nga ne euh, bu fekkee ne euh, yàlla daa dogal nga nga nga nga ngay jàng xasida mm-hmm. te di ko teewlu di ko sellal mm-hmm. dalay wóor ne nga wax ak nga bañ a wax sëriñ bi mu ngi lay won mi ngi lay won ay ay ay yëf ci xasida yi xasida yi dooleem moo demee noonu xam nga mag ñi bu njëkk ñoom nañ daan jàngi xasida manam damay ragal ne li sey Abdou Samad wax legi bo de jang khassida te te te te gisoo ci la nga la nga la nga la nga wut la nga la nga bëgg wala gisoo ak yokote ci sa bop deug deug ngay set sa -hmm. ndax dalay lay ni du ci khassida yi ci sa ci ci yow jëm ji koy mm-hmm. mm, jàng la ndax ko xamni ki da nga bëgg boole jang khassida ak mm, euh, tok di waxtaan lu nit wax nga dugg ci euh, bëgg boole yor sa téléphone di manipuler bëgg ci boole yeneen ak yeneen ak yeneen di connecté ak yu demee noonu. te te ne da ngay jàng de xam nga loolu sëriñ bi euh, mënta ànd. Mm-hmm. te te te te sëñ Tuubaa da fonk xasida yi ba nga xam ne képp koo xam ne yaa yaa yaa ngi ci rax dara dara dara lu ci bokkut. Mm-hmm. lu lu nurawut ak xasida yi. Mm-hmm. yow moom maanaam euh, desu la reconnaître maanaam sa njàng moomu moo moo moo ku liir ku journal lire rek ñooy xaw a yem. maanaam dafa am warma ma jun ko war a jox. dafa am waral ma jun ko war a jox dëgg dëgg dëgg boo ci bëggee jariñu ndax kat lépp ci la ne ni ma koy ni ma koy faral di waxee Sëñ Tuubaa moo ne yaquudu lii kun fa yakunu minka su lii ma su lii bi am nañ xadra di toxanka kon loolu yonent bi la ko waxoon waaye ci xasida yi la ko bind kon malaktan il qurana wal uluma nafaata bil jahula wala alima kon suqtaliya nafa bi xayri durri wajjaxtalil xayra bi xayri bi bi xayri charri <laughs> nga xam ne suñ tubaa xasida yi lépp da ko cee def ay bay ci neex nga nga wax noonu sax ndeysaan <laughs> suqtal ya nafa bi xayri durri wajjaxtalil xayra bi xayri eh, bi xayri charri maanaam màngal nga maanaam njariñ hmm. xëcc nga njariñ mu jëm si ci man lu àndut ak lor nag hmm. kon nag jubale nga ma mboolem yiw yëpp nag yiw yi ba tey it yiw yooyu it àndut ak lenn lenn luy gaañe wala luy lore wala dara déedéet kon yiw yëpp daa daw daa daa daw daje ci sëñ Tuubaa waaw hmm. am na mag ma mag moom masa wax ne ko xam ngeen euh, loolu ñoo alhamdulilahi la si li haza li haza yi xam nga lu muy lu ko ah bëgg naa hmm. li haza waaye li hansa nee na li hansa jooji li muy joxoñ mm. mooy moom sëñ tubaa ne ko dee leen ko wax lu bari ngir suñu jëmm ji euh, sant nañ yàlla mi nga xam ne mm. moo nu jubale ci lii nee na ci lii joojee nee na mooy moom mooy moom sëñ tubaa ne dee leen ko wax lu baree bari mm-hmm. euh, ngir jëmmam ji kon daal nañuy fonk xasida yi bu baax a baax amiin ndax sëriñ bi euh, ci la ñu defal lépp amiin amiin amiin lépp lépp mm-hmm. amiin jërëjëf sëriñ Abdou Sakor kon su ko defee rek xanaa ñu fàttaliwaat mbokk yi laaj yi nga xamante ne moom la ñu leen indil laaj bu njëkk bi mooy wax fir li kulli muuminin wa muumina waxud lahum munan li shukrin mudmina wax fir li kulli muslimin wa muslima wahab lahum min karidan wa marxama wax fir li kulli muxsinin wa muxsina wa lahumu awsil mazida xasana soxna Diagne Cissé jaalibatul maraaxib moo ko jaayantil xasida ak jaalibatul maraaxib ak xasida gi di anta rabbi nga fàttaliwaate ñaareelu laaj bi waaw kon sëñ Modou ñaareelu laaj bi mooy xaw naa niroog boobu waaye bokkuñu genn xasida guñ nekk ba tey moom waxfir li kulli muminin wa mumina maxfiratan li kulli xayrin mudmina ndeysaan آه، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة ديسان ديسان موي نياري لو بي لولي تام ديسان دنجي ديغن ني سيغ توبا موم بيروم جوليت ييب داف كو ييتيلون جيغلو جوليت نييب ريك داف كو ييتيلون داخ واخول واي واخام سوي سيتانتال دو واخني لكل مريد نانغ ماك نانغ واي موم سيغ بي جوليت ييب اك مبيندف ييب صاح يرماندي اغنا با سي مودون واخ نان ارحم جميع الورا nga xamanteni mbolem lu mbindeef suñu borom yi rek mu doon ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu wàccee yërmande ci mboolem lu mbind mm-hmm. yaakaar naa loolu itam euh, dafay tax ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax ci li nga xamante ne moom lañu ñu sëñ Tuubaa bàyyil muy xasida yi mm-hmm. kon su ko defee dañuy teewlu Sëriñ Muntaxa Gay mm-hmm. ci ay abiyaat yu am am solo itam yoo xamante nii keroog doon na ko jàng ci euh, bésu xasida bi incha allah mu nekk njàng moo xamante ni njàng mu am solo lool te neex Sëriñ Muntaxa Gay bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا قصائدي من لوح ربي تنقل لا ينتهي فيها نبيل يعقل قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت اهتز عرش ربنا وسبح الجند العزيز في البناء وسبقت غيري إلى الجنان مع النبي القرش العدنان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر أجابني الرحمن قبل الخلق السبعين ألف سنة بالحق يقود لي كن فيكون ما أريد ولو سينحوني شيطان مريد درجتي عند الإله ترتفع ترتفع وإنني بلا حساب أنتفع درجتي كوني خديم المنتقى وبيده حزبه له التقى رفعني الإيمان والإسلام وقاد الإحسان لا ألام رفعني إخدام خير الرسل رفعا به وافقت كل مرسل رفعني الرافع فوق الكرما بلا افتخار بمنى لن ترما سعادتي قبل وجود الخلق سبقتها وكنت لي بالطلق جعلت فطري فوق كل صوم جعلت النوم كقيام القوم jërëjëf sëriñ Mountakha Guèye ci njàng mu am solo moomu waaye itam ci wax jure jooju nga xamante ni sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wax na ko ci njëriñul xasida yi mu mel ni comme noonu mi ko waxee xaajat xasaidi min mujizatil Mountakha sallallahu alayhi man hadaa wantaxa boobu sëriñ Touba mi ngi fi xam le ne xasaidam yi dañoo bokk ci kéemtaan yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam xasaayid min mujizaatil muntaxa kon loolu yaakaar naa dafay wane màggaayu xasida bokk ci kéemtaan yi nga xamante ne mooy kéemtaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu mujj yi nag ndax xaajat xasaayid yi xasaayid yi min mujizaatil muntaxa sallallahu alayhi man hada wantaxa wajal xurufi mujizaatin uxirat wa xayru xayraat la day ko duxirat waaye tam mu teg ci ne kitaabati faaxat suyuxa tarbiya wa kulli xayrin wa suyuxa tarxiya di xam la ni foofu ne mbindam te mooy xasaayidam yi ñoo gën a kawe sëriñu sëriñu tarxiya ak sëriñu tarbiya hmm. loolu itam yaakaar naa dafay wone loo loo xamante dafay wone màggaayu xasida dañu fa faral di wax ne sëriñ maanaam xasida yi moom soo ci nekkee hmm. euh, du la wax ne defal wala dindil du la xas du la def la day def ci yow lu muy def te bu nag mën na laa wax ne defal di la jubbanteeg mais bu dee xasida yi moom yow yëpp du la ko ci fekk la ci fekk moom da jàng rek muy def ci yow euh, lu muy def ci yow ku la gis xam ne yow mi euh, am na lu nekk ci yow kon yaakaar naa loolu itam defe naa dafay wonewaat màggaayu xasida mm. mu tegaat ci wax ni kitaabati min lawxi rabbi tunqalu laa yamtari fiha nabihun yaqilu mm. di xam le foofu ne itam xasida yi saa bu koy bind mi ngi toxalee ca lawxul mahfuz mu ngi toxalee ca lawxul mahfuz euh, kon la yaakaar naa loolu dafay wonewaat màggaayu xasida mm. nga xam ne euh, lu jiit mën nañ wax ne lu jiitu sëriñ bi ah. euh, am na ay borom xam-xam yu doon bind ay xasida ba ci jamono ji ñu toll am na la ñuy am na ñuy bind ay xasida mm. ndax xasida mooy bind moo xam ne dañ koo bind mu nekk ay way tënk ci juróomi baaxaru yi mm. loolu lépp lu ci mot juróom fukki bayit jëm kaw rek loolu xasida la mm. waaye nag koo xamante ne suy bind dafay jàkkaarloog lawxul mahfuus di fa toxale kooku ci sëñ rek lañ ko gis loolu yaakaar naa dafay wonewaat màggaayu xasida ñu xam ne lii ñuy jàng ni sëñ Tuubaa nee na mi ngi koy bind mi ngi doon jàkkaarloog lawxul mahfuus di ko fa toxalee di bind kon war nañ cee gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax mu wax ne itam xasidati faaxat xasaidal kiram wali taxuda abadan xayral maram soo xamee ne ci lawxul mahfuz la taxalee rek kon da ngay xam ne mbooleem gaa yi nga xamante ne doon nañ bind ay xasida donte na xasida ñu bindoon am na lu ci suñu borom def boo reconnaître ko nangul leen ko teewul li jóge ci lawxul mahfuz moo gën a jóge lu jóge ci xelum jàmbur loolu itam yaakaar naa dafay wone maagaayu xasida wax na itam ne isa katabtu tazar sul baaxi wa sabahat malaayku tibaaxi waxtu woo xamante ne sa mu ngi bind moom Serigne Touba aras dafay jaayu malaka yep di di sabbal sun borom subhanahu wa taala kon lolou yakarna da fay woni manam ma gayu khasida amna bayit bu am solo itam bu mu wax ajaabani rahmaanu xabla alxalqi sab'ina alf sanatin bil xaqi gis nga ci khatimatul munajat di nga gis muy wax ni allamani maakaana xabla alxalqi sun borom xamal nako lépp lu jitu muy bind doomu adama allamani maakaana xabla alxalqi kon fi mun ajabani ajaabani rahmaanu xabla alxalqi sabiina sanatin sun borom wuyu nako lu tollu ci jurom naar fek juney at lu jitu muy bind muy bind doomu adama kon dafay dellusiwaat ci te li suñ Muntaxa Mbàkke doon wax léegi rek euh, ne sëñ Tuubaa euh, lu lu lu suñ Abdou Samad wax ci moom loolu mbindeef mënu ko kon sëñ Tuubaa moom kenn xamul li mu doon mm. ba tax na xasida yi nga xamante ne def ñu ko fàggul defal ñu ci njëriñul àdduna ak àllaaxira waxal ñu ko boppam ah. kon war yaakaar naa war nañ cee gën a góorgóorlu bu baax a baax wallaahi wallaahi wallaahi war nañ cee gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax mm. euh, loolu lépp liñ li ñu koy mën xamee mooy sëriñ Tuubaa moom mm. li li nga ci wax li nga ci leeral léegi rek noonu la demee sëriñ bi ay mbiram darut tey maanaam mm-hmm. darut darut darut jëf jëfi jëfi jëfi kese kese kese mm-hmm. wax dëgg yàlla nu nii xuta kii nag mais nag mm-hmm. day loo xam ne sëriñ bi moom du jëf jëfi nit kese ndax li ko waral mooy moo wax ne ataani allahu fi ruuxi wa fi jasadi maa laa yuraalisi wa saati bila tuhali wallaay ndeysaan waaw sa suñ borom jox na ma loo xam ne ci sama ruux ak ci sama yaram loo xam ne doo ko gis jën jenn jenn jenn bu du mën a Ahmadou Bamba wallaay ndeysaan kon nag ah suñ tubaab moom bukkut ak bukkut ak gaa yi maanaam buy buy lim gaa yi kay. Hmm. da nga koy sëppi maa ngi koy sëppi ba noppi teg ko nee. Hmm. door a tàmbali naan gaa yi nii naan ah waaw gaa yi moom lu ñu rawante nangam nangam xaside waaw kay. Hmm, suñ tubaab moom. jël ko teg ko nee. waaw la ma waxoon yonente bi ne ko loxo sabqu xiinal jaddu fi tiini yox sunu. loolu rek moo ne ci moom. daa waxoon yonente bi ne ko yow daal. Ah, ah, maanaam nu bu wëtu xablal bara yàq din jëlat moom daal ak euh, njëkk mu koy yónni daal hmm. ah, euh, maanaam laata sunu maam aadama ñu koy tën ca ban ba hmm. fekk na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mu doon ab yonente te te ñu wax ne doomu aadama la hmm. Sëñ Tuubaa ñu ne doomu aadama la waaye moo waxal boppam ne euh, yaa ko wax léegi juróom-ñaar fukki junni at laata ñuy tën ñuy ñuy bind mbindeef waaw laata ñuy bind mbindeef kon nag Euh, kooku moom kenn du moom. Mm-hmm. kon xasidaam yi nga xam ne da ko toxale ci alway mahfuus lenn li ci xalima ga. Mm-hmm. yooyu xasida du bokk ak yeneen xasida. xasida yi koo mën a doon. Mm-hmm. wenn wenn baytu suñ maanaam wenn wenn wenn xarafa suñ tubaa bokkut ak sa xasida koo mën a doon nag wenn xarafa suñ tubaa bokkut ak yow sa xasida sa sa sa sa li nga bind lépp wenn xaraf waaw ndax kat moo wax ne Euh, euh, na nga def sama sama sama xaraf yii xaraf ma dul wu ne muy jaamu yàlla gu ñu nangu. jaamu yàlla gu ñu nangu la xaraf wu ne. Mm-hmm. kon nag ba xaaja xuluubu jumlatil amlaaki xattiya fii tawxiidi sil aflaaki nee na daal sama xasida yi day dugg ci xol malaayka yi di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko yëngal mm, bu ñuy jàng sama xasida yi malaayka yi dañuy békk seen xol yi di di neex mm-hmm. ñu naan sama xol bi dafa neex waaye قصيدة سنت باي داي نياخال خلو خلو خلو خلو ملائكة هذا خلو بجملة الأملاك خطية waaye nag fi tawxiid sil aflaaki mm-hmm. waaye nag waaw kon kon kon kon suñ tubaab mi noonu mm-hmm. madxi taqabalta bi qadrika al azim fii xatti man ataytuhu duran azim kon suñ tubaab mbindum mi mm-hmm. day bégloo day day bégloo malaayika yi day bégloo suñ borom day muñ loo yonente bi salaay salaam di ko reeloo eh, kon nag eh, lu mat a jàngale de te di ci góorgóorlu bu baax a baax a baax te te te te te ñëpp xam ne nag lu waay mën a jàpp bu alxuraan jàllee. ndax moo ko njëkk jàllale ba noppi bu alxuraan jàllee xasida gën loola. ndax kat eh, defe naa am na eh, li ma ko fi wax bari na am na ku ñëw ne ko mbàkke eh, sa sa murid day dégg naa ñuy wax loo xam ne ëpp na. mu ne mu ne ko ana lu ñu wax mu ne ko dañoo wax ne am na xasida goo xam ne ku ko mokkal bu duggee ci bàmmeel kenn du la laaj mu nakir nakir ak mu kiir duñ la laaj dara mu ne dënn ba mu yàgg mu ne ko ñoom de dañoo wàññi maanaam waxuma xasida gépp wenn bayit laa wax ci biir xasida googu muy jaawartu mm-hmm. xasida ak jaawartu la la waaj la ko naar bi wax ne ko nee nañ ko ko mokkal doon la laaj ci biir bàmmeel mu ne ko dañoo wàññi dam wenn bayit rek laa ca wax kon nag ah, ah nañ fexe di jàng xasida bu baax a baax. Mm-hmm. ah te di ci góorgóorlu luñ mën rek yàlla suñ Tuubaa nangoo ñu lépp. amiin yaa rabbal alamin. ak Cheikh Amadou Bamba. ñu fàttaliwaat mbokk ne ñu ngi teewlu rajo Touba FM kaddu gi di bàyyi ko fii ci rajo fii ci Touba ngeen di teewlu seen émission ahlu xasida di ko ànd ak seen mbokkum taal bi Modou Thiaré jàkkaarloo ci ak Serigne Abdou Sakkour Mbaye. Mm. mooy bu mu bi 88 allah. Mm-hmm. ci ngeen di jaar ngir mën a tàbbi ci biir tegal juróom fukki simili ak juróom benn fii ci studio Mourad daan na wax ne waxfir li kullil kaatibin aw xaariin aw saamixin aw naasirin yaa baari nee na yow yàlla mi nga xam ne yaay jéggal bàkkaar na nga jéggal bàkkaar xaside yi ñii di ko bind waaye na nga jéggal bàkkaar yi ñii di ko jàng waaye na nga jéggal bàkkaar yi ñii di ko déglu ak xol bu set jërëjëf sëriñ Xaadim la Gaydel ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci ngëneel yu am solo yooyu nga xamante ni andi na ko euh, kon daal dafay mel ni xasida moom euh, sooy jàng ñu lay jéggal mhm. sooy bind ñu lay jéggal mhm. euh, sooy déglu ñu lay jéggal mhm. sooy xool di béggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak loolu lépp di wane màggaayu xasida kon su ko defee dañuy ànd ak sëriñ Xaadim Gaye ci moom itam keroog jàng na fa ndeysaan ci màggalu xasida yi njàng mu neex lool ndeysaan comme ni mu ko baaxoo defee saa su nekk rek kon mbokki ñu ànd ak Serigne Khadim Gueye incha allah. الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما لئن شكرتم لأزيدنكم لرب كريم واس خير محبود ذكوري لدى داري وفي البحر والبيد رب كريم واس خير محبود سكوري لدى داري وفي البحر والبيد إلهي حكيم في أنسو تفضلي خني ومخن جوده جود تابيدي نفعني الأحداث ترا وساخ لي مرامي بلا كد وديخ وتسديدي foo mën ti nekk ci àdduna wërngal këpp mën ngaa déglu rajo Touba Fall FM www point samfal point com Touba Fall FM rajo ñëpp في كل ليل ونهار استجو مراد سكوري له بالقلب سرمدا ولي جاد بالتوفيق فضلا وتسديدي كفاني في الدارين نكون الإله لي بلطف وجود فإيده خير محدود kon xaside Sëriñ Tuubaa ci la lépp la kon nag dañ ko jàng te di ko sellal te xam ne sëriñ bi kat liggéeyam bépp bépp ba mu jeex li mu doon liggéey rasulullahi lépp lépp xaside yi la lu mu am itam ci xaside yi la ko amee kon nag dañ ko gën a fonk te gën koo sellal ta xam buñ ci saxee te sellal ko mboolem li ñi bëgg ci ak aduna ak alaxira suñ borom danañu ko defal ta moy ngeer mu señ tuwa ngeer mu señ tuwa nak moy li ëpp solo ci li li ñu sàkk ta xasside gis gis lu ko ci gëna gaaw kon nak yalla ñu suñu borom xeer ci ñu taq mo diko jang jàng te di ko sellal رجائي لدى المخلوق رجاء محقق lahu سرت habdan wa ربي ومولودي تعالى كريما مغنيا خادمي له بلطف وجود واسع خير محدودي رجائي لدى المخني رجاء موقخ له سرت حبدا و وربي ومودودي تعالى كريما مخنيا خادني له بلطف وجود واسين خير محدودي macha allah jërëjëf sëriñ Xaadim Gaye xasida ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaara di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér kon su ko defee ñu fàttaliwaat euh, mbokki laaj yi rek laaj bu njëkk bi mooy waxfir li kulli muuminin wa muumina waxud lahum mu nan li shukrin mudmina waxfir li kulli muslimin wa muslima walahumu waxfir li kulli muslimin wa muslima wahab lahum min karidan wa marxama waxfir li kulli muxsinin wa muxsina wala mu awsil mazida xasana loolu mooy laaj bu njëkk bi tey incha allah soxna jaan si sa jaalibatul maraaxib moo jaayante xasid ak jaalibatul maraaxib ak xasid ak antarab bi ngeen mën a jaar ci 88 628 19 25 incha allah sëñ Abdou Sakor nga fàttaliwaat leen ñaareelu laaj bi jërëjëf sëñ Modou kon ñaareelu laaj bi mooy waxfir li kulli muminin wa mumina مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة بابو موي نيار لا بي سيني 628 19 25 موي بو مو جوكو بي ان شاء الله نجن دي تيلو سين ايميشن اهل الخصيده في تي توبا فال مو ملني امنا كو نيك تي لين السلام عليكم السلام ورحمه الله آه، سانك بي